jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo ngeen taaxi lu ñu jukki leen li fi jot a ruusandi ci ay xibaar dañuy doxantu ba ca dëkk ba la ñuy wax Salémata fekk fa mbir mu doy waar bi nga xam ne rek moom moo fa daal di xew niki démb bi ay 21 heures te jàpp benn 2 heures nag accident bu metti bi nga xamante ni moom moo am foofu foofule accident bi nag leen sookewu ko lu dul benn gendarme boo xamante ni rek mu ngi doon dawal otoom seen benn nag bi nga xam ne mu ngi doon jéggi ci lay moytu nag bi rek ci la oto bi daal di drapé Eh, oto bi daal di rek këpp ci la gendarme boobu jaari rek ñàkk kanam eh, fi nga xamante ne foofu la defee accident bi jotul sax yeggu hôpital mbir moomu nag nekk loo xamante ni lu doy waar la waaye teewul ñun waa wasaare ñu ngi ñaanal ki nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo yàlla yërëm ko xare ko aljanay firdawsi fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jógee eh, teewul ñun waa wasaare dinañu wéyandi di topp information boobu leen li fi jotaru sandi ñu jukkil leen ko jërë ngeen jëf ci topp bi ngeen ñuy topp ak taamu bi ngeen ñuy taamu ba beneen yoon incha allah actualité